gàcce ngaalaama jigéen ñi te bu ñu xoolee suñu wet madame le maire madame Oulay Sall ñu koy nuyu de passage ju koy wax mu jël sunu nuyoo jottali ñu ko monsieur le maire Alioune Ndoye Gass kon mu mel ne bu ñuy taxawal lu mel nii toog ñu yëg ni kat procès am na ñëpp buur bëgg sol seeni daal ni dañuy dugg ci ay kaar dem Thiès tribunal loolu dama bëgg nit ñi xam ne ñi koy def dañuy jéem li ñuy wax influencer juge bi waaye ku gëm sa bopp ci weeru gàmm wu mel nii ñuy waajal gàmmu dangay sol say daal dem gàmm ji julli ci yonent bi sallallahu moo tax ma ni leen nun li ñu war a def su fekkente ni gëm nañu suñu borom noppi na suñu gëmee ni suñuy woote réunion fii lañ koy def ci biir Barna Sénégal ñu koy wax Touba Protéine Marine di taal machine di liggéey. ñoom bu ñu taxawee ci mbedd mi ni ku nooy dee te ñun fi ñu toog usine baa ngi liggéey ah nañ xoolaat lu ñuy wax dañ xam ne internet loo fi wax fii ak junni junni ak say sët danañ ko xoolaat kon lu as gor di na ko xool ñun woote wuñ ci pénc woote wuñ ci réunion ci àll woote wuñ ci devant le tribunal ni devant la préfecture ci biir Touba Protéine Marine la ñuy woote te dañuy liggéey ni ñaa ngi sol seen i tenue di liggéey te kenn takkul masque ñii depuis trois ñi ngi fi ñi fi liggéeyit fi la ñu dëkk kon as gor nag bu la xaalis jaral nga tay la sa bopp ndax ab dëkk kenn mënu ko tay la te yàlla noppi na ndax defe naa ñi fi toog ñooy kayaar jëggaani wuñ kenn fenn ak tund jandeer moo tax sama sama yaram daw ndax bu ñu ma présenté ñu jóge jandeer ñi jóge béer ñi jóge jàmm gën mbaawaan kayaar kenn desul ak kër ab Ndoye kilifa yeeg ñëpp ñëw loolu li muy wund mooy te ñi fi ñëw quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi Serigne Touba sere na ni xamuñu ma xamuma leen kon ñooñu dëgg moo leen yëkkati mu mel ne nag loolu su amee ñun nan santaat yàlla te xam ne réew mi dafa soxla ay acteurs de développement metti na boroom kër yi sonn nañu jigéen ñi daw nañu bay bëgg dee ñooñu ñooñu li ñu soxla du ay wax li ñu soxla du taxaw ci kanamu tribunal wala kanam préfecture di sonal nit ñi nañu yërëm sunu yaay yi te dem liggéey yi nañu yërëm sunu bàyyi te dem liggéey te bàyyi wax ji lii mooy wax ji ñu neexal la nag as nga def ko ci sa poos génn di wax nit ñi loolu rafetul li ñuy def nañ wax Greenpeace ne ko na bàyyi mool yi suñu génnee ni ñoom dañuy taxaw kayaar Ablaye Ndiaye ma leen jiite su génnee danaan Greenpeace day xeex juróom fukki usine yi nekk ci Afrique de l'Ouest te ci biir juróom fukki usine yooyu Sénégal juróom-ñaar la ci am Gambie am ci ñeent tamit am na ci lu fanweer ak juróom kenn déggul juróom-ñaari usine ne Sénégal juróom-benn yi ñu wax te am na Ndakaaru am na fu ne ci Sénégal waaye waa Kayaar rek li ma leen di wax bu ngeen deful ndànk Greenpeace da leen def xóosmaa ñàpp bu leen ko nangu ay góor leen gëm leen seen bopp def leen waa waa Touba protéine marine ngeen di fanaan ci usine di teewoo ñaq ngir seen njaboot ak seen famille as góor góor day nangoo liggéey nangoo sonn li mooy wax ji waaye bëgg a gàddu ay wax sëñ bi ñeenti ati yàlla ngay wax muy yu nii nga jàpp ndem si yàlla yi ngaa seka di wax nga ne duñu ko tabax ñu tabax ngay wax duñu monter machine yi ngay wax nga ne duñu taal ñu taal ñaari at ñuy liggéey ngay wax ngir yàlla noppil te liggéey lii mooy dëgg ndax ñii tax usine bi tàkk dama bëgg ñu xam ne yow da nekk mool jàng géej dem géej man ma jàng tailleur dem nekk tailleur dem liggéeyi kii jàng dawal saret dem dawal saret kii dem université defi master am jàngi environnement wala mu jàngi pêche génn nekk un agent assermenté assermenté mooy ku tàllal loxoom waat wane ni dëgg rek laay def yow nga nekk bitim réew yàlla dogal nga dajale say alal ñëw ci dëkk cim réew ni mankat war naa dellu Sénégal jàppale sama askan du ma jël samay milliards tëdd Europe di ko lekk ak a naan toppatoo sama jaboot bañ a faale nit ñi nga ni naa ñëw créer emploi naa ñëw jël sama alal bokk jigéen ñi naa ñëw jël sama alal bokk ko ak commune bi nga ñëw gars yi nag fi ñu tàmbalee mooy dañ lay dóor ñi ay visa la ñu bëgg pour dem Europe ñi dañ lay wutloo camion frigo ñi dañu lay leb xaalis soo nee nag man déet askan wi rek surtout jigéen ñi ak góor ñi ñu commencé di la dóor waaye nag fi ñu dal li tax baaxul mooy boo fekkee un combattant boo xam taalibe sëñ Touba la du raf waaye du tooñ du ñu tooñ du ñu def dara lu dul ci li yàlla bëgg ci la ñuy nekk agent yooyu suñu jàppee un promoteur bu mel ni Barna ñu koy wax Touba protéine tey naan ko wutal lii defal licence bi defal étude bi mu dajale population kayaat bi yëpp ci service de pêche 14 mars 2018 askan wa jóg yëkkati seen loxo ni d' accord nañ ci ñu bind ko gouverneur ni c' est bon kon mooy Kayar d' na ñetta lankoon ñett ñooñu ba ñu lankee leen Greenpeace fichier di leen jàppale li ñu leen di jàppale da ngeen wax bu ngeen màggatee ñu bàyyi leen ñoom dañ leen a yanu jàggati leen ci dóor leen ci suuf avril 2021 ñu dugal leen ñi leen bind leen seen i tur ku bàyyi doom ja taxul nuy wax kon dañ leen di sacrifier dem leen liggéey agent assermenté yooyu suñu jëlee un programme jël ay licence état Sénégal mobiliser tous les moyens qu'il le faut ñuy ñëw ci usine yi def ay inspection ñëw ci usines yi def ay rapport di ko def ba ni usine bii respecté leen leen norme environnementale ñu wax européens yi ñi leen xool leen usine bi européens yi xool ko ak exigence yi ñu am ni usine bii respecte na norme yi ñi usines yi nekk Europe ñu jox la licence nga commencé di liggéey gars yi di la laaj ci suuf nga ni déedéet jigéen ñi laa koy def financement 100 millions ci banque gars yi di la ci suuf nga ni déedéet dama koy jox ñu màggale Touba gars yi di la laaj nga ni dama koy jox ñi gàmmu ji Touba gars yi di la nga ni ko déedéet askan wi laa koy jox ñu ne nañ créé benn forum boo xam ne ñun suñ ko defee Greenpeace nee na moom nañuy ruux rek ñuy pousse nañ jox paas nañ jox ay per jëm mooy li ñu lay fay boo paree réunion fii kenn për jëm indiwu ko fi kon nañu gën a góorgóorluwaat xam ni Afrique moo ciy perte Greenpeace dañ leen di financé rek pour bañ wax ci bato de pêche yi ci biir géej waaye di wax ci mool su ko defee yow yaa ngi sacrifier sa sa sa askan parce que pexe Greenpeace su sottee du usine farine de poisson yi mooy yéen dootu leen napp ndax bu ngeen nappee bu ngeen am ko jaay waaye damaa defe ni bateau bi jeexal géej mooy kii tàllal leen mbaalam nekk bateau boo xam ne ay milliers de mètres la mbaalam di am mu tàllale ko Ndakaaru waaxum Ndakaaru di mbaal dugal mbaal bi ci géej gi di filer lu mu romb yóbbu ko ba yegg ndar génn ko su àggee lépp lu mu soxla ci jën wu rafet wu neex mu génn ko ñu congelé ko yóbbu Europe lépp lu mu xam ni lii lu baaxul la mu jël ko loolu la sànni Greenpeace loolu la war a wax te loolu nous on a vu l' état Sénégal jël ci ay dispositions état bi ak marin di ci liggéey ñu xam ni ñii ñu ngi liggéey Greenpeace di nelaw bu ñu jógee léeg-léeg ñu jël benn ministre bu Greenpeace jëlee jël benn acteur ba mu yàgg nag fan yi ñu ni comme ñu ngi toll ci fin d'année te financement yi léegi mu jeex dañoo war a régler bi. nañ gaaw yëngal li des ci année bi ñu xam ne ñun ñu ngi def ay réunion moo tax fu ñu tase ñun nag nañ xam ne loué wuñu kenn demuñu ba ba ba sumba jum wala fenn loué loué fa kenn yi fi nag yi fi dëkk kon loolu dañ ko xam parce que gars yi war a fi réunion daal di loué ji ay gars yu sol ay affaire ñëw toog fii ñi fi dëkk c'est des acteurs et de la population de Kayar il faut mu leer soxna yii ñooy liggéeykat yi daan seen doole ci géej gi ak ci kaw joor gi ak ci marché yi di liggéey ñooñu nag Touba protéine marine dafa fas yéene ànd ak ñoom ba géej gi fer loolu dinañ ci ñëw dinañ ñëw ci yoo xam ne ay action la yu ñu war a def waaye thème bi nga xam ne tey moo tax ma ne woon kilifa yi man de sama sago du jël kilifa yi nga xam ne ñoom laa dendal notable yu mel nii ñu yëg ni man jiitu naa maa nga jëm tribunal ñu fas ne ànd ak man tribunal bu Thiès muy suba di 6 octobre 2022 taxaw ci tribunal bi yuuxu pour lan pour influencer le juge dafa mel ni juge yi ak magistrats yi duñu ay sénégalais comme ñun ay sénégalais lañu waaye ñoom bu ñu seetaanee internet j'invite le juge des référés na dugg internet mu xool ñiy wax tey ni Barna dafa xeeñ ñiy wax ni tey Barna euh, dafa jeexal jën yi Barna dafa tuur ndox mi nañu xool ñooñu dañu doon wax naan Barna moo baax ñooñu dañ doon wax naan Barna deful benn étude d'impact environnemental et social tey ñiy wax ni Barna dafa xeeñ dañoo waxoon ni bu tàkkee ñu dee ñooñu vaar lañ leen wala yóbbu ba dee lañ ñu waxoon mais tey ñu am une zone bu reculée tous les camions fosses mu muy yu jóge ci kër yi di yóbbu ci benn zone ñun ñu am lu ñuy wax traitement des eaux usées ñu jël ndox mi traité ko pare fa ñuy yóbbu gannaaw kër yi ñu yóbbu ko fa ñu xëy rek ne man nag ndoxu Touba protéine ma neen xam naa ne barkeb Touba bee tax ndox mi am ay tànk ba jugee fa moom ndoxu cabinet yi fañ koy sotti moom mu dox ak tànkam juróomi kilomètre ba ca forage ba joxaat 300 mètres dugg ca forage ba yàq ndoxu Kayar te ba ñu ko yë ba ñu ko yëkkatee fii une première fois wax ko la rajo locale ñi nga xam ne ñooy asufor muy ñi yor ndox mi ci dëkk bi di jaay ndox mi di superviser ndox mi di ko taxaw dañ leen a démentir defe naa su fekkoon Touba Protéine Marine dafa def lu ajuwul ci dëkk bi ñaar ñi ñooy wax la mairie ak ñi nga xam ne ñooy asufor bi yor ndox mi. le maire ne m'a jamais interpellé mi ngi may dégg moom Alioune Ndoye Gass ci li jëm foofu adjoint tamit toog sama wet du ma leen fenal amul benn agent Assufor nii le président ni son adjoint nii le secrétaire général bu ma mosoo woo ba ne ma jàll ndox mi kon xam nañu loolu ay nar la.